إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم قسر مسنده يحسبون كل صيعة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يوفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم inna allaha la yahdi alqawma alfasiqin sadaqa allahu bi muy franco-arabe bi daara ja biñ ko sancee ba mu am at si lañ fi ñëw ab bàyyi sëriñ initié pour ñu dugal fi jàngum alxuraan si kaw loolu si lañu bokk ci benn programme muy daara moderne xam ne état bi moo ko initié woon si cent daara yi nga xam ni moom moo amoon ci Sénégal ñi nga xam ñoo ñoo bokkoon ci projet bi cent daara département Tivaouane am si cinq daara ñun daara Mouhamadou Badiane Seck si lañ bokkoon ñu doon jàngal xale yi alxames si suba ak àjjuma si suba naan ñu kon eh, bi ñu defee jàngalee at après ñu def ay test niveau de performance ci 100 daara yi nga xam moo nekkoon ci Sénégal yëpp ñun suñu daara ji Mouhamad Badiane Seck moo nekkoon premier dans tout le Sénégal loolu sawarloo borom daara ji ba mu nekkoon léegi gannaaw compétence yi mi ngi fi kon dafay sos euh, franco arabe bu ko defee xale yi nga xam ne mokkal nañu alxuraan ñu continuer jàng si si franco arabe bi ñi nga xam ne aussi jàng nekk nañ si daara ji yàgg fi te mënuñu mokkal ñu am formation français ak arabe bi aussi si kaw loolu la ñu franco arabe bi mais bi ñu jëlee premier au niveau national ba sëriñ dafa ne ñu ne na xam ni seen liggéey mi ngi door a tàmbali ndax jël ngeen premier mais da ngeen war a fexe ba place bi ngeen nekk du ngeen fi jóg looloo waral aussi bi ñu nekkee ci franco arabe bi ñu toog continuer di dox ci jéego yooyu suñu borom defal ñu sutura ba zone Niakhène bi ñu nekk ñun ñooy la meilleure école ndax 6 ans mi ngi nii à chaque fois 100 pour cent de réussite la ñuy am ensuite euh, non seulement suñu élèves yi dañuy am performance boobu mais suñu demee di Euh, comme essai examen blanc bi nga xam ne moom la ñu defoon en mai passé sur 123 euh, élèves suñu école moo jël premier du centre te am les huit premiers aussi du centre nga xam ni ki jël premier si ñoom moo tolloo ki nga xam ne moo jël suñu école ñun huitième donc liggéey boobu suñ ko mënee c'est parce que dañu am ay enseignants yu taxaw yu compétent te bëgg li ñuy def ñu mën si citer ki nga ñi nga xam ñoo nekk si premier cycle bi première étape bi muy euh, Moustapha mbay ak euh, Khadim Silla ak ñi nekk si deuxième étape bi muy euh, Serigne Mandiaye Diop ak Biram Lay mi nekk en même temps surveillant nekk aussi enseignant si école bi man aussi ma nekk directeur en même temps maître CM2 ànd kook monsieur Mandiaye jóg donc ñoo ñooy enseignants yi nga xam ne ñoom ñoo nekk si école élémentaire bi mais liggéey boobu aussi dafa am ñu koy saytu muy un de d' ñi nga xam ni si jiitalu euh, professeur caam mi nga xam ni ñoom Mbàkke la ñuy jóge à chaque fois ñoom ñooy ñëw di saytu liggéey bi di natt élèves yi di xool progression yi di xool aussi jàngale bi nga jàngalin bi nga xam ne moom la enseignant yi di jàngale ñoom ñu sever lool si seen contrôle yi ñuy def ba tax parfois dañuy ñëw critiquer maître bi ba mu jaaxle ndax ñoom dañuy wax ne bu leen yem si jàngal élèves bi pour mu réussir kese mais da ngeen di xam ni élève bi aussi su réussir si examen dafay dem si yeneen école war a am yeneen enseignement yoo xam ne dafay tegu si li ngeen ko jàngaloon. kon plus que li ngeen koy jàngal muy wér plus que muy gën a dëgër si moom da koy permettre su demee si si euh, yeneen beneen cycle bi dafay gën a yomb si ñoom. loolu suñu borom defal ñu si tawfeex saa su ne daaw jekk amoon nañu meilleur élève si euh, euh, CEM bu Daaru Salaam. ren aussi am nañ meilleur élève encore CM Darou Salam ñoom ñëpp ay moins 18 la ñuy am ñu am aussi élèves yu fi génn daaw am entrée en sixième dem Dakar aussi nekk fa les meilleurs dans leur établissement mais performance yemul foofu parce que daara moderne bi mu nekkoon wax léegi jamono yooyu sam alxames ci suba ak àjjuma si suba rek lañ doon jàng am na si élève ba nga xam ni trois ans la fi jàng bi mu amee 3 ans am niveau C2 c'est la dem Dakar def CM2 directement réussir CFEE entrant sixième war a def sixième lycée jàng fa un an borom bi defal ko tawfeex mu dem extérieur dem France bi mu fa demee def ci niveau de perform euh, test de perform test de performance mu réussir am niveau troisième secondaire def BFM réussir def enseignement professionnel deux ans bi muy def deuxième année mu def concours. Euh, comme ni ñu koy defee fii si alxuraan bi nga xam da ngay def niveau département niveau régional door def niveau national bi ñu defee niveau département mu jël premier def niveau régional mu jël premier def national mu jël premier le 21 février passé euh, si lañ ko jox médaille d'or à Paris avec euh, une moyenne de 18 sur 20 kon euh, pour ñu bañ a guddal wax ji en dehors de inspecteurs yi taxawaay boobu ñu am moo tax performance yooyu ñu koy am mais liggéey boobu si suñ ko suñ ko mënee c'est parce que si dañu am njiit ya nga xam ni bañ a ñu dara lépp loo xam ni muy moyen pédagogique lépp lu ñuy soxla si enseignement bi heure bu ñu leen ko waxee dañu koy jàppandil ñu si sant di si jaajëfal sëñ Fall mi nga xam ni moom moo ñuy accompagner ànd kook Baye Talla ak Baye Serigne di leen sant si taxawaay bi ndax élèves yi fii ñëw ñi nga xam ne ñoo nekk si daara ji su ñuy waree ñëw si école bi CREC buy gën a tuuti école bi moo leen koy yoroo ñoom sax donc dañ leen di laaj ñëw indaale ko ba lépp loo xam ne dañ koy soxlawoo si seen jàng daara ji moo koy warlu kon ñoom vraiment amuñu seen amuñu seen fay xanaa du dul di leen ñaanal comme ni ko euh, sëñ a waxee ñu bañ a guddal ndax dafa xat ak ajuma ji donc euh, ñu ngi leen di baalu ak di leen baal ak asalaamaaleykum wa rahmatullah wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin seydina muhammadin wa ala alihi wa asxaabihi wa qadimihi wa ummatihi wa sallama tasliman mbokk jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ginnaaw bu leen nuyoo ñu ngi leen di dolli di leen ziyaara te di leen dolle balu àq te di leen dolle bala àq bu loolu weesoo <clears throat> ñu ñëw ci li nga xam ne ni moom lañu mbokk yi sant ngir ñu war ko fàttalante ci ndaje mu barkeel mi nga xam ni ñu ngi koy amal fii ci barab bi di barabu alxuraan di barabu lislaam mu aju ci wàllu njàng mi nga xam ni mooy wàllu njàngu diine tàmbalee ci école ba ba wàcc si ci kippaaruk li ñu tuddee majalis mu mel ni loolu ak fàttali rek lay doon ñenn ñi doonte akuk leeral boo xamee ne xañ na leer na ci ñu bari waaye xanaa doole leeralante rek ak doole fàttalante bu dee ci wàllu njàng mi xam nañ ne programme bi nga xam ne mooy programme mu école ba am na programme mu diine boo xamee ne bu jub bu dëppoo ak ni ki nga xam ne noonu la ko réew mi soxla ci njàngaleem diine ginnaaw bi nga xamee ne nii ay professeur ñoo ko saytu ba teg ko doomi réew mi di ci mën a jàng mu aju ci wàllu primaire bi muy marxala ibtidaaiya loola day woy ba ci marxala al i'dadiya dana continuer sax ba ci marxala asanawiya kon muy njàng mu suufe mi ak mu digg doom mi ba ci njàng mu kawe mi programme boobu day woy ci école yi nga xam ne ñoo aju ci école gouvernement yi taw ji ci wàllu njàngu euh, franco arabe wala ñu ko tuddee loxo arabiya mu mel ne nag bu loolu weesoo kilifa yi nga xam ne ñoo fi samp lii danoo wëlbatikuwaat ci biir loolu sosoowaat mbir moo xamee ne mbir mu am doole la ci wàllu lislaam ak jullit bi te mooy ñu fexe ba diinam jooju muy jàng ca école ba mu gën a mën a dëgër gën a mën a leer ci boppam ba bu fi jógee diir bi mu fiy nekk lu mu gàtt-gàtt buy dem dana am lu leer ci boppam ci digganteem ak li ko war ci moom ab jullit dëgg-dëgg nan la war a mel ci boppam li ko war ak li ko warut waaye faratay boppam digganteem ak boroomam digganteem ak li ko yàlla sant naka la ko war a jëfee ak lu ci am jafe-jafe naka la koy réparer ba ci wàllu yar bi nga xam ne mu waaju ci diggante boppam ak i waajuram ak diggante àdduna bi nga xam ne moom lay dugg di jaxasoo ak nit ñi loolu nag tax nañu samp lu ñu tuddee majalis majalis nag buñ ko waxee mooy njàng moo xamee ne mooy njàngum cosaan ci daara ngir nit ki mën a gindeeku ci wàllu diineem la ko war diggante ak yàlla mu mën ko saytu ba xam ko ca la muy fas ci boroomam ci xeeti pas-pas yi ñuy tuddee al iman muy wàllu gëm yàlla waaye sax ak wàllu lislaam it te bu ñu waxee lislaam mooy li nga xam ne moom la yàlla tëral mu rëdd ko ngir jullit bi war cee mën a jaar ci di jëfee li ko yàlla digal tey bàyyi li ko yàlla tere loolaat ñu di ko tuddee al islaam beneen bi ci topp ñu tigale al muy rafetal fexe ba yar sa bopp yar sa digganteeg la war sa digganteeg sa borom ba li ngay jëf foo koy jëf nga mën koo jëf ci anam ba gën a sell njàng moom yi nag ñu tëral ko ci ñetti at yi nga xam ne nii moom la fi xale bi di nekk ginnaaw bu génnee ci daara ji la jiitu nag programme bi muy téere yi nga xam ne moom lan saytoogun ngir ñu koy jàngale ci daara ji ci wàllu woowu la jiitu mooy téere yi mag ñi daan jàngalee mu aju ci wàll xale bi bu fekkee na ci année bu njëkk bi génn na ci daara ji ba dem ci école ba année bu njëkk bi danañ ko jàngal al axdari yi kitaabul axdari yi ñenn ñi di ko wax laxdari ya laxdari yi nag mu nekk téere boo xam ne téere cosaan la ci njàngum majalis ngir mboolem loo xam ne nii nit ki war na ko xam ci li ko war ci ab jullit ak lu ko warut ci wàllu laab ci wàllu pratiquer lépp loo xam ne nii lislaam da ko ko digal ci julli ak la ci aju yooyu yëpp maanaam téere boobu da koy leeral tax na xale bi dana door ci ak ndooram téere boobu ñu tuddee al axdariya waaye dana ca àndanteeg sax téere bu ñu tuddee tasawudu sixaar tasawudu sixaar ñu bari xam nañ ko mu bokk ci téere yi nga xam ne nii sëriñ bi radiyallahu anhu moo ko taalif ñu ni ko jàngal suñuy ndaw doomi réew te mu sënku ci ñetti poñ muy xamle ak gëm yàlla gu mat sëkk ak lislaam ak lixsaan xale bi nag ci diirub at mu njëkk moom yi nag danan fexe ba mu peek mboolem lu aju ci ñaari téere yooyu ci dégg ko waaye ci di ko wat ndax du jëm ci jàng bi rek waaye ginnaaw bu ko jàngee ba mu leer ci kaddu wolof bu leer dana ko dana ko tari tamit dana koy tari. loolu ñu di ci ànd teg sunu mbokk Cheikh Mouhamadou Moustapha mbay mi nga xamee ne moom ca école ba la nekk maag moom ñu ànd ci njàng moom mi nga xam mooy njàngu majalis mi. bu ñëwee ci année ñaareel bi muy atum ñaareel mi ci topp xale bi danañ ko jàngal li ñu tuddee al wii téere maanaam imaamul la day jàngale fiqh Euh, danañ ci teg yeneen i téere yoo xam ne day aju ci wàllu luga arabiya lu demee ni ki taarixul islam musawara ak insa u saxee ak téere nax yi nga xam ne nii day door ñu ko tuddee nax lu waade su génnee ci étape boobu euh, dana jàll ci ñetteelu étape bi muy ñetteelu anem bi nga xam ne moom la fiy def bu boobaa bu ñëwee dana àndanteeg nun ci ñu di ko jàngal téere jawharu nafis mu gën a leeral laxdari bi mu jàngoon waaye dana jàngit nax ju qadaayil xaaj waaye danañ ko jàngalit téere bi nga xam ne moo di Asmaawi ba keroog balaa mu fiy jógee bu mënta jeexit dana ci sore ak lenn ci téere yi nga xam ne ay téere luxawi yi la lii mooy programme bi nga xam ni moom lañ tënkugun ngir xale yi di ci jàngalale seen wàllu majalis waaye du yem ci loolu sax danañ gis ne waxtu woo xam ne ni nun ñi nekk ak ñoom di leen jàngal ci njàng moom yi danañ ci àndanteeg suñu mbokki sëriñ daara yi ci ay jamono yoo xamee ne ñoom tamit dañuy def ay effort ci di tënk xale yi ci wàllu njàng moom ñu di leen dajale di leen ci laaj di leen ci gën a faram-fàcceel ba mbir mi gën a sax ci seen i bopp ba bu ëllëgee ku fi jógee boo fi jógee da nga mën a àndanteeg la gën ci yow ci wàllu xam ak wàllu yar ak wàllu xel mu sell loolu nag ñu ngi ciy dollee sant ñi nga xam ne ñoo di kilifa yi te di ko jaarale ci loxool Serigne Abdou sekk mi nga xam ne ni moom la ñu Serigne Fallou ak Serigne taala ak Serigne Alxaaji boole ak nun ci wàllu woowu ndax wàllu téere yi nga xam ne moo aju ci wàllu njàng moomu ak wàllu saytu gi moom mooy ki nga xam ne moom lañ ko teg ci loxo mu di ko saytu te lenn lu ci nekk mi ngi koy saytu ci anam ba gën a sell benn xale du ci am benn jafe-jafe ci li muy war a jànge ci téere yooyu yi téere yëpp dana yemb ci waxtu wuñ ko soxlaa ci anam ban ko gërëme ñu ànd ceeg ñoom di ko teqamtal xale yi suñ kémtalay kattan lii daal mooy li nga xam ne ñu ngi koy mu nekkoon ndigal yi nga xam ne ni joxoon nañu ko ngir ñu fàttale ko mbokk yi bismillahi rahmaani rahim asalaatu wasalaam ala rasulullah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi nuyu mbooloo muy fi daje yépp di nuyu góor jigéen mag ndaw di jiital ci nuyoo bi kilifa yi nga xam ne ñoo jiite daara ji buñ ci limee ku mel ni sëriñ Seck ak sëriñ Talla Mbaye ak Serigne Fallou Seck day yóbbaale ñépp ñi nga xamante ni ñoo nekk seen ginnaaw waaye dañuy beral nuyoo ñoom ñett ñépp dañ fee am kilifa muy Serigne Khoudia Seck nekk seen kilifa nekk koo xamante ni mag mu neex a dëkkal la mag mu oyof mag mu lewet mag mu am yërmande ci ñim nekk kon dañ koy beral nuyoo bi di nuyu suñu mbokki dëkkandoo yi buñ ci limee waa cekkeen dañ ci teg waa njóobeen ndax wax macha allah ñoom jàmmal nañ ñu dalal nañ ñu yaatal nañ ñu te dëkkoon nañu kon loolu am solo la kon sunu mbokk njóobe yi ak sunu mbokki cekkeen yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di leen sant ci taxawaay bi ndax wax dëgg yàlla gis gis nañ fi ngeen ñu teg kon ñu ngi leen ciy sant bu baax a baax di ñaan ànd bi yàlla na yàgg man nag seen Mortalla bis bi dafa am lu ma ci jàng muy dafa am ñaari xeetu bernde yu fi am muy bernde boo xam ne ruuxi yan la ak bernde boo xam ne maddi yan la bernde ruuxu yan bi mooy lan si suba ba léegi ay aaya ñu ngi fiy wàcc di wax suñu borom loolu rek berndeb xol la kon mu des berndeb jëmm bi nga xamante ni ñu ngi koy waajal fële kon wax dëgg yàlla kon tey ñaari bernde am na fi te bi ëpp solo mooy berndeg ruu mooy bi nga xamante ni maddi yan la muy aaya yi fi wàcc nekk waxi suñu borom kon man jàngat boobu laa ci am dañuy beral nuyoo tamit parents dele bi macha allah rawatina yaaye daara yi ñoom ñu ngi leen di sant bu baax seen taxawaay ñu nangoo sonn ci daara ji lañ ndax euh, fi ñuy wax ak nii am nañ benn groupe boo xamante ni lépp loo xamante ni daara ji yite woon na ko wala loo xamante ni buñ ko waxee daara ji dina ci gis seen bopp loolu ñu ngi ci dox guddi ak bëccëg suba ngoon te duñu ci taay yi kon yaay daara yooyu ñu ngi leen di sant bu baax a baax xam naa duñu xootal xóotal ndax kilifa gi dina ci wax muy Serigne Fallou Seck noonu lañuy ñuy santee bàyyi daara yi macha allah ndax ndongo bu amee ndey day am bàyyi kon wax dëgg yàlla ñaari tànk yépp a ngi dox muy tànk càmmoñ bi ak tànk ndeyjoor bi su ma waxee loolu nag dama ciy jublu yaay yi ak bàyyi kon ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax si taxawaay bi ñu ngi sant ñi nga xamante ni ñoom lañ bokk ak liggéey bi. muy maam Cheikh Ibrahima Fall ñu koy sant bu baax ci ak njàmbaaram ak ci ak oyofam suñu kilifa la waruñu woon a wax wax sax moom lañu waroon a jox kàddu gi waaye dañu koy sant bu baax moom it di sant maam Mor la mi nga xamante ni surveillant la waaye en même temps chauffeur la di sant Serigne Saliou Cissé di sant Massamba Thiam mi nga xam ne moo nekk ci bunt bi di sant waa waañ wi ci njiital soxna ma amisi la ak soxna Assu Thiaw ak soxna Say Diop ak soxna yi nga xamante ni 15 jours yu ne dinañ ñëw fóotal ndongo yi ñu ngi leen di baral cant gis nañ wax dëgg yàlla coono bi ngeen ciy daj encore une fois damay profité ci occasion bi sant ñi nga xamante ni ñoom lañ bokk ak daara ji ndax daara ji léegi rek am na ci orateur yi ñi ko wax alxuraan la français la majalis la waaye tamit ay yarkat lañ ay toggkat lañ ak ñi nga xam ne ñoo yor côté hygiène bi muy Moustapha Bangoura ak Mohamed Bangoura ñoom it ay jàmbaar lañ lool ci liggéey bi ñu koy seedeel mbooloo mi di ko seedeel kilifa yi di leen wax ne ñi nga xam ne ñoom lañ séq ak liggéey bi ku ci nekk yaa ngi def sa kéemtalaay kàttan ba liggéey bi lu mu laaj rek nga def ko muy guddi muy ngoon wax dëgg yàlla ñoom it ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax di soññaat rek parent d'élèves yi ci li nga xamante ni moo jëm ci daara ji xam naa dañuy gàttal rek ndax euh, aljuma lañ nekk te ñu ngi waajal waxtu wi te daanaka wax ji li ci ëpp sax wax nañ ko mais nag la répétition elle est pédagogique loolu moo tax waaye ñu ngi leen ñu soññ rek ci visite parentale yi foofu ñu ngi leen ci bàyyi loo xel ndax am na lu bëri sax xam naa incha allah ci groupe bi lañ koy waxee dinañ ko gën a yaatal foofu waaye ñu ngi leen gën a soññ ci visite parentale yi ndax am ndongo fu mu nekk soxla na ku ko nemmeeku nemmeeku bu mooy ñëw xool ndongo bi ci lu mu nekk ndax da koy dundalaat xale bi nga xamante ni waajuram ñëw na seetsi ko wax dëgg yàlla dafay am loo xamante ni dafay am jeexital waaw ñi ngi tuub bu baax euh, ñi ngi ñi ngi ñi ngi jégalu bu baax a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد فإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملت وهنا على وهن وقصاره في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جادعك على أن تشرك بما ليس لك ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي Habib macha allah sëñ El Hadj kan moo ko def shahada sëñ Talla bi bay moo ko jox shahada sëñ Talla bi bay nee ay wajur أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 waa ترى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ

المشركين والمشركات وكان الله عزيزا حكيما تكبير ñoom ku mel ni soxna Wali Jaxata ak seeni doom ñoom ñëpp teew nañu fi ci turu njaboot gi. sëriñ ma yaasin Seck teew na fi ak sëriñ Cheikh Seck maam Dame Seck ak sëriñ Moor Diop sëriñ Daara Touba sëriñ Galo Diop sëriñ Daara ak waa kër sëriñ Fadilou Diakhaté Mirina Sa ci yebal fi sëriñ Moustapha Diakhaté ak sëriñ Cheikhouna Diakhaté ak sëriñ Souhaïbou Diakhaté ak sëriñ Abdourahmane Khouma Ndam ñooñu la Serigne Fallou yebal muy délégation boobu ñu teewal ko fi Serigne Fallou Gaye sëriñ Daara ak Serigne mbakke Mbay Langoor tuuba sëriñ Ahmadou Mbay Touba Langoor Serigne Taara nekkoon ci liggéey bi. ak sëriñ Ousmane si ak sëriñ Cheikh Diop sëriñ Daara moom itam teew fi sëriñ Ibrahima Kan sëriñ Daara sëriñ Baara Saw ak sëriñ Muudu Mbacke ma Daam ak sëriñ Xaadim Mbacke moom xaani moom itam teew nekkoon na fi jiite liggéey bi dafi liggéey bu rafet kon ñii mooy ñi nga xam ne teewlu nañ leen fii ci ñan ñi fi teew incha allah buñ fi nemmi waatee ñeneen rek dees na fi ñëw jàllale ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. doon ki nga xam ne moom lan tànn mu war a teewal senegaal ca Dubaï xam nga ni waa Dubaï ñoom bu fekkee dañuy jël bu dee xale bu jigéen la xale bu jigéen bi ki muy àndal mbokk lay doon moo xam ni ku ko xaraam lay doon ci wàllu boroom kër maxaram lay doon ci moom ah, te man mi ko yoroon doonuma woon maxaram ci moom moo waral ñu obligé boole ko ak yaayam mais obligatoire mënul woon a ñàkk ngir ma dem ndax nit ki ki ko jàngal moo ko mën a cotiser bu fekkee day def compétition. biñ demee ba sës rikk bi ma jaaxlee naka laay mën a dem ba mën a am billet bu ma mën a yóbbu ndax ñoom duñ ma jël en charge bàyyi fàllu laa woo ci sens wallaay bi ma ko waxee ci sanse la ne ma billet bi ñaata la ma ne ko nàngam la mu ne ma ñu la koy dugalal kon nag loolu liggéey la bu am solo ndax jël. bokk ci dix premiers yi bu fekkante nu àndul woon ak ku ko course teg ko ci aw yoon du jàll ndax bu demee jafe-jafe ku ne xam ne compétition doonu lu yomb kon loolu mbokk yi ñu ngi ciy sant bu baax Baye Serigne Seck Baye Fallou Seck Baye Talla Mbaye ndax Baye Fallou li may wax mooy liggéey bi maag samay kilifa ñoo ko ànd man maay bunt bi nii jaar rek waaye lépp ñoo ma te loolu daa baax rek macha allah yal na yàlla barkeel waaye yal na yàlla fay leen kon loolu jëf jooju yi tey bu ñuy lim ndam yi nga xam ne ndey bu su am na ko bokk na ci li tax mu am loola mooy mu am ku nekk ci am goo xam ni ñoo koy jàppale ba loola mën a am kon loolu ñu ngi leen ci sant baax di leen ci jaajëfal kon jërëjëf sëñ Moustapha Mbacke ginnaaw aoudu billahi min alshaytan arrajim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 ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا أعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا ما شاء الله حسبك صدق الله العظيم تكبير takbir macha allah sëñ alxaaji kan moo ko jox shahada. jërëjëf Serigne Mor Talla kon ñu woo waa kër Serigne. Moodu wala. aleykum salaam wa rahmatullah. afdalu ma yutla wa ma yuqaalu wa xayru ma yuhda ilayhi maalu li gën ci li ñuy joxe mooy alquranul karim. li gën ci li ñuy joxe mooy alquranul karim kon ñi nga xam ne ñoom la ñuy tuddee bis bi sabi si la tey ak jàmm bi ñu gis na ngay tey yéen macha allah alhamdulilah alhamdulilah kon. Uh, cadeau yu am solo yi nga xam ne moom la ñu gis nii ci kaw taabal ji moom la ñu fi indi macha allah amut lu gën lu ñuy jox ku ñuy jox alquranul karim non أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد صدق الله العظيم ñi ngi nuyu mbooloo mi ñépp ci turu sëñ Ahmadou Silla mi nga xam ni moo toogee jataayu sëñ Mat Silla Ñaaxeen di jël nuyoo bu sell boobu di ko teg ci loxool Alaaji Fàllu Sekk mu tegal ñu ko ci loxool Alaaji Sëriñ xëy euh, na kàddu yi may yëkkati nag dama koy yëkkati ci turu sëriñ Dindi mi nga xam ni moo fi teewal sëñ Ahma ak mbooleem ñi nga xam ni moom lañ àndal ci mboolem njabootug njabootug sëñ ma Madougou góor gi ak njabootug njabootug sëñ ma Madougou jigéen bi di commencé ci sëñ Mbàkke Sylla mi nga xam ne moo kii ci góor ñi ak euh, mboolem jigéen ñi soxna Ndey Touré ak soxna Amintuloo Sylla ak soxna Ndey Sylla ñaaxeen ñoom ñëpp ak seeni mbokk euh, njaboot gi waxoon ma ni ma am naa lu mel nii moom dafa am solo lool ndax yi ci aju dafa bari te lépp it dañuy gis ni lépp alquran moo ko tëgg ndax alquran dafay wax ni hal jazaul ihsaani illa al ihsaan loolu dafa mel ni jawaab la jawaab charte bi nag ku dugg ci biir téere bi da nga gis la ci des suñ borom tamit dafay soññee bu baax a baax ci ñu rafetal àqi dëkkandoo te kenn ku nekk xam na ni balaa may commencé bayt sekk ak daaru ñaaxeen ay dëkkandoo lañu te sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ni man kaana yuminu billahi wal yawmil axiri fal yuxsin ila jaarihi rawahu muslim yonent bi saa salaam daf may képp koo xam ne gëm nga ni yàlla am na te xam nga ni bis dana ñëw na rafetal sa diggante ak say dëkk lii nag yaakaar naa dara jiituwu ko ci rafetal sa diggante ak say dëkk au mbokk gi waxuma sax bu weesoo mbokk gi nga xam ne moom la euh, way saytu daara ji am ak sëñ si la ñaaxeen dëkkandoo gi rek dafa euh, rafetoon dafa yell ci lu mel ni am balaa may sori loolu danaa ñëw ci ki ñu tudde bis bi xaj na mën nañoo am ay lay yu baree bari ci atar ci sut na ba tax ñu mën a wax ci moom waaye aada it xaj na mën naa dàq ngay wax ci ku la jege ci sa maam ngay wax ci moom xaj na ay jikkoom yu rafet wala luñ ko war a royee loolu moom aadama na ko daq waaye it dañuy tegtaloo rek ci xadiis ummu maabat bi wax ni e, Seydina Xasan ak Seydina Xuseyn nett li boobu mu leen nett li jikko ya bi saa salaam foofa rek la ñuy iqtibaase ba mën a wax ci sëñ Madu teg ko ne def ko ab royukaay te bañ a def ko bokk ak moom dara lu mel ni dafa am solo lool jël bisu alquran def li ñuy wax parrainage wala ñu bàyyeele ko wala ñu ndayeele ko nit koo xam ni jàpp nga ni ab liggéeyam ci société bi wala ay jikkoom jaadu na nit ñi xam ko ba ko ci loolu lu am solo la te buñ delloo ci e, lislaam wala ñu dellu ci diine mën nañ ko wutal ay lay yu wér yu leer sëñ si la Ñaaxeen mi nga xam ni moom lañ cëralee bis bi mu nekk cër bu neex lool sëñ Ahmadou mi nga xam ni moo fi nekkub xalifaam kenn ku nekk xam na ni dafa am ngànt ci wàllu yaramam ba dem bitim réew faju ji loolu moo tax moo tee ab jotaayam ñëw fii waaye wax dëgg yàlla njabootu boppam ak njabootu sëñ Badu gépp mobilisé wu nañ ànd ñëw ngir delloo su njukkal teraanga jooju nga xam ne alaaji sëriñ ak alaaji lu sekk ak ñi nga xam ne ñoo àndal defal nañ ko seen bopp ndax bu ñu ko defalee sëñ Madu seen bopp lañ ko defal ndax ñoom yaakaar naa kenn umpulewu ci sëñ Madu euh, ak jikkoom ak taxawaay bi mu amee ci gox bi Euh, njaboot gi nag ngir sant ci loolu euh, indi woon nañ alquran yaakaar naa euh, jàngalekat alquran ku ko jox alquran jàppale nga ko ci liggéeyam indi nañ lu toll ci limu kaamil bu mat ay fukki fukk daanaka lim bi sax amul solo day aada rek ñu di ko wax waaye indi nañ ci ay kaamil alquran ab limu lim am na it ñu ca boolee ab enveloppe ngir maslaay aada donte ñi nga xam ne dañoo tudde bis bi sëñ Modou sax loolee gën a luñ leen woon ndax ñoom dañoo jàpp ni kat sëñ Madou référence la ci société bi boo xam ne nit ñi war nañ koo mën a roy ci ay jikkoom war nañ koo mën a roy ci ay responsabilité yi mu yore woon ba pare nangu woon ko ak it kilifteef gi mu nekkoon walla Fallu dafa maa wax sàng di ma li nga xam ne moom lañ war a gën a roy ci sëñ Madou mooy am kilifa te nangu kilifa loolu nag l'islam ci jëm boppam moo ko njëkk a digle te moo ko santaane ndax euh, waykatu arab ba dafay wax ni fawda la surata bu fekkente ni nit ñi tënkuwuñ wala surata lahum isa johaluhum saadu bu fekkente ni nit ñi nga xam ne ñoo yor laab ji yor nos wi di wommate jubuñu wala dañoo réer kon la topp ci ñoom lépp dañuy réer kon am kilifa gu mat kilifa xam lan mooy ay responsabilité am te nangu ko kooku lislaam mu ci jiitu ñëpp kuy topp nag da ngay topp ko xam kuy jiital da ngay jiital ko xam waaye jamono jii ñu toll nii ak mondialisation bi ñu toll nii ak ouverture bi ñu toll bi ak technologie bu ubbeeku bi ñu toll nii ak jaxasoo gi ak pëccëxoo gi kenn ku nekk war ngaa am benn référence booy teg sa kaw donte nag ñun ñëpp dëppoo añ ci ni référence moom benn la mu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye bu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam eh, eh, ñëwee fii it dafa amoon ay représentant ay ñoo xam ne ñoo koy teewal ci dëkk yi ñoo xam ne ñoo koy loolu mën nañ caa tudd Maaf ibnu Jabal moo ko teewaloon ci Yaman moo fa nekkoon taxawaay kon kenn ku nekk ci ñun war ngaa am kilifa goo xam ni bu mat kilifa la xam la mu doon tege ci siraatal mustaqim te di la ci teg loolu ci la sëñ mat si la ñaaxeen nekkoon sëñ mat si dëkkul fii du cosaanam moom fii du cosaanam mbaakol mbaakool la bu jóge ca ñaxal waaye li ko indi fii ci dunduk cheikhul xadim la ñëw fii ci dundam it ci dunduk cheikhul xadim la ko sëñ Touba boole woon ak sëñ Mourou Moustapha mu nekkoon ci sëñ Touba nag moom am ak sëñ Tuubaa ay jëflante yoo xam ne daanaka jotaay bi du duñu ko jar ba di ko li waaye li ko indi fii rek la ñuy wax sëñ Mounu Sow bi mu koy indi fii yàgg na loolu boobu sëriñ bi mi ngi njaareem sëñ Mounu Sow woo ko ni ko man de maam Cheikh Anta daf maa jox dëkkam bu ñuy wax ñaaxeen fële ca Mbaakoon man maa fa waroon a dem nekkal fi sama bopp waaye jëmm daa mun a nekk ñaar ne bu jëmm mënoon a nekk ñaar sama jënd jëmm laa yóbbu ñaaxeen mu nekkal ma waaye maag yow foo nekk mi mel ni maa fa nekk foo nekk fu sa jëm mu nekk rek sama jëmm fa nekk ni ko boo demee la tàmbalee ca mbaaxul ba ca njaay ba ku ciy laaj ndigal na ñëw ci yow ku ci am lu muy joxe na ñëw ci yow ku ci am kuy jokk na ñëw ci yow lu dul ni daay am ku munta ñàkk a si nga ànd ak moom indi kon sëñ Madou loolu moo ko indiwoon fii bi mu ñëwee fii ci gox bi ñëpp dëppoo nañ ci ni mbaga mbaakoon yëpp dëppoo nañ ci ni sëñ Mat si la moom daanaka moo nekkoon li arab di wax nibraasu mbaakoon kenn ku nekk xam na ni lépp lu jëm ci murid ak tariqatul ya ki nekkoon bunt bi mooy sëñ Mat Sëla Ñaaxeen fii ci gox la ko waraloon nag lépp mag mu ànd ak sëñ Touba balaa ngërëm ànd ak sëñ Mourou Moussa def ko kilifa ànd ak sëñ Cheikh Yadda Fall def ko kilifa loolu day wane nit ku nekk rek war naa am référence boo xam ne moo lay jiital teg ci yoon loolu lépp lu baax la waaye am na beneen facette beneen côté bu ñu war a gën a royee sëñ Mat Sëla Ñaaxeen muy ak dëggu ak jaamu yàlla rawatina alquran jii ñu ko tudde tey amut ci njabootam gi mu doomi boppam yi koo xam ni umpale nga alxuraan maa ngi doon wax sax ni bis bi de buñ ko teeloon a yëg danañ indi fii kaamil boo xam ni sëti sëñ mat la ñaaxee bi ñoo koy bind ci seen loxo te du leen rax loolu amoon nañ yéene def waaye xañ na ni temps bi xate moo tax waaye kon bu ñuy ñëw fii di teewal sëñ mat la danañ indaale kaamil boo xam ni sëti sëñ mat si la yi satoo ci moom direct ñoo koy bind te kenn du leen rax kon loolu doy na sant yàlla fii ci daara ji am na ci njaboot si mat si la ñoo xam ne koo xam ne fi lañ mokkale am na ci ñoo xam ne ba fi ne nii ñu ngi fii ci école bi di jàng kon bu ñu weesoo alxuraan ji jëfe gi mag ñi xam sëñ Madou xam nañ ni jaamu yàlla daan nekkuloon lu mu daan sàggane waaw xam naa ma kii rek ma tënk kon ah, ci li ma bëgg a wax rek mooy nit boo koy roy dangay roy ci moom la nga mën a roy te mooy la zahir mooy li baax roy ko ci jaamu yàlla roy ko ci jub roy ko ci dëggal kenn ku nekk xam na ni sëñ Mat Sylla taalibe bu défiwee la woon ci ak taalibeem daaw ci négocier kenn waaye jaamu yàllam kenn ku nekk xam na ni nee nañ bu ma saa nekk ci tool yi ba noddu kenn amatul sañ-sañu guddeet genn ñax wala nga ruuraat benn bopp ci suuf lu dul da ngaa julli ci loolu nag la ko waral sëñ Tuubaa moo ko moo ni ko woon Mat Sylla looy defati ba julli jot na ko bàyyi te dem julli ci xes xesa bu ñuy dégg naan sëñ bi newoon na romboon na mag ci njaareem muy sàkket sëñ bi ni ko looy defati bu julli jot na nga ko bàyyi te dem julli ji kooku sëñ mat si la ñaaxee loolu ko kon maa ngi tënk foofu di sant bu baax a baax a baax a baax ñi ma waroon a jiital muy ahlul quran ñi nga xam ne ñoo nekk ci daara ji di jàng di ko jàngale yéen ñu mat a ñee ngeen ndax lu baree bari yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ko wax ci yéen donte ñun ñëpp ñu ngi ci daara ji waaye al aqrabu awla may profité di wax parents yi ni daara ji bu doxee sëñ way yuru donga yi ñoo ko doxal ndax koo xam ne kat boo jëlee sa doom yóbbu ko ca daara ja buñ ne ko waxal baax ñu jéggal ko jéggal ndeyam ak baayam jéggal ay sëriñ ba koy jàngal dama ni foofu lu wéra noonu bëreetul loolu waykat ba wax na ko nu xaw ma dégg raxas waaye ne na wa xaytuma yubasmilu sabiyu fi maktabin yuktab lahu al aliyu wa walidayhi wa liman yuallimu baraatan min naarihi faltaalamu kon waxuma leen yéen ñi nga xam ne moom yéen ahlul quraan ahlullahi wa xaasatuhu kon yàlla yàlla sàmm leen te sàmm ñi nga xam ne ñoo yor daara ji muy alaaji sëriñ ak ñi leen di jàppale